jërë ngeen jëf mbokk internet yi dalal leen nag jàmmoo ba tey rek ñu tolloo ko ñaari fan yi campagne jëm ñett rek ñii di candidature yi kenn ku rek yaa ngay wana sa doole ak sa mobilisation fas kenn rek dagaan li nga xamante ne si naam moo ti baatu askan wi kooku nga xamante ne si moo di Mamadou Makhtar Cissé moom nag mos a yëkkati kaddu te xam lan rek candidat yi la nuyu seen si ñoom. moo di eh? rek ñuy yëkkati li nga xamante ne si ne moo di discours nga xam ne jàmm rek lay indi si réewum Sénégal rek campagne bi warut a ànd ak benn violation ginnaaw parce que nemmi ko dem rek foofee sa pikin ñooñu di ñooñu Ousmane Sonko ak ñooñu Amadou Ba amoon foofee ay jàppante jolti jolti ci sa campagne bi te jamono joojee laaju ñu loole sa campagne bi kon nag la ñuy ñaan sa campagne bi mu doon rek campagne yu jàmm kenn ku ne rek daal di mën a amal sa discours jamono ko rek si askan wu Sénégal ba taxara rek ñu ne danañ jël li nga xam ne ñoo di bipp pour rek ñu jagleel ko li nga xamante ne si na ñoo di candidature ñu war rek li nga xamante ne si na moo di seen sécurité Canada yi kenn ku nekk fa nga yi wëy di diggee kon nag yaakaar naa digge yooyee askanu Sénégal ña ngi koy bëgg a miin ña ngi koy bëgg a ba tax rek ña ngi koy nemmeeku si Canada yi bëree bëri ñuy wëy di continuer di digg rek li nga xamante ne si la ñoo di askan wi bu leen falee bu leen tegee si bopp réew mi ana nan lan war a yore réew mi ak lan mooy seen mébét si réew mi ak fan lan bëgg a li nga xamante si di réew mi Sénégal. kookee di Basirou Diakhar Faye mu doon Ousmane Sonko moom it sa teere AKPS daje discours yi nga xamante ne si ne ñooñee ñëpp yëkkati nañ ko fa ak lan mébét yore li nga xamante ne si ne moo di réewum Sénégal ba tax rek ñu ñaax li nga xam ne moo di patriote ñoom ñëpp rek ñu ànd ak ñoom wateel leen lool la ñuy si ñoom ba tax na rek ñoom ña wéy di continuer